jotaay ak waxtaan bi nga xam ne imaam def na ko euh, lan lañ mën a ci dënk ci bésu tey bi waaw Moussa ñu ngi sant yàlla bu baax yàlla mi nga xamante ni que ni moo def nu fekk tey julli gi yàlla moom moo amel nañ ko cant ñu ngi koy ñaan mu gëngënu ba nu fekk déwén ba ñu dajawaat fii te kenn ba ñu manqué di am mbégte nag lool di dajawaat ak yéen di sera li nga xam te ni que ni mooy tey xutba euh, sang bi Mame Libasse muy sujet bu am solo boo xam te ni que ni bu ngeen ko fan yu néew ci gannaaw yëkkati woon nañ ko fi ba mu am coow lu bëri euh, loolu nag la sang bi tey indi pour jox ko njaboot gi jox ko jullit yi ndax kenn ku ci nekk. bàyyi ci xel xam ni que ni loolu lu lu lu yàlla bëggul la muy boroom ñaari tur yi defe naa ni sàng bi mu ci wax tey jii ñun ñëpp dégg nañ ko ñi mu ci interpellé it dégg nañ ko ndax wax na ni ñi ci war a wax ñëpp dégg ci ñu bari ñu wax ci ñi ci war a taxawit ba tey déggagul ñu taxaw ci kon nag dafa ñoo ñooñu pour que ñëpp ñu wax ci ñi nga xam ni it ñoo jiite réew mi it war nañ ci am xaj na position bu gën a leer ci boppu doomu aadama yi ndax it suñu xoolee suñu réew ni mu bindoo nuy ay jullit rek en grande majorité kon problème bu mel noonu bu posé woo ci réew mi mu nekk loo xam te ni que ni yàlla bañ na ko te rëbb na ñi ko ñi mel noonu kon dafa jar ñu def ko un débat pour que ñu xam exactement lan lañ ci war a mën jël comme décision loolu defe naa ni nguur gi li ci ci war dinañ ko def euh, diina ji it ñi nga xam te ni ñoo ŋànk diina ji ci réew mi muy xalifa yi ak ñi nga xam te ni que ni ñooy imaam yi yëpp. dafa war a jar ñoom ñëpp ku ci nekk taxaw ci taxawaay bi nga ci war taxaw wax ci li nga ci war a wax ndax ñu sange njaboot gi ndax suñu ko deful ëllëg ci si biir suñu demee dinañ koy layoo ak suñu boroom ndax euh, sang bi li mu ko wax ne rek yàlla rëbb na ñu mel noonu ak ñuy jëf-jëfe ñu mel noonu kon nag le débat est ouvert je crois que sang bi wax na li mu war a wax ñu ci war a wax nañ ci war a wax ñi war a jëf nañ ci war a jëf ba nga xam te ni que ni dana leer ci boppu nit ñi ak dana leer ci nga xam te ni que ni réew mi ñu nekk ak njulit bi ñu nekk dana leer ci doomu aadama yëpp. Euh, tout d'abord euh, je constate que dans la première partie de son de son message il euh, tire ce message des sermons de Mame Seydina Limamou Mahdi alayhi salatu wassalam qui renouvelle ses salutations à l'endroit euh, des musulmans des hommes, des femmes, des jeunes, filles et garçons, mais également d'insister sur l'unité de Dieu. Euh, car Dieu ne pardonne pas euh, des, des, des, péchés de ce, de ce genre, trouvés incomparables à Dieu subhanahu wa ta'ala le Très-Haut. Donc il a mis l'accent sur ça avant de rappeler euh, la tradition de cette prière de, de Tabaski Kip euh, Kabir, mais en même temps euh, d'égorger le mouton. Voilà. Mais au-delà, par rapport à l'actualité du moment, il a souligné en apportant en tout cas des références euh, bibliques sur euh, l'homosexualité, n'est-ce pas, comme le peuple de l'autre qui a été sanctionné par Dieu subhanahu wa ta'ala qui avait envoyé ses, ses, ses anges, n'est-ce pas, Euh, retourner la terre sur eux, mais également même l'épouse de, euh, du prophète Lot qui était complice à ces, ces homosexuels. Donc euh, nous avons constaté que euh, nous sommes à la fin des temps et que certains euh, pays, en tout cas considérés comme les pays occidentaux, tentent autant que faire se peut d'embraser euh, le monde entier sur un phénomène qui est condamnable à suer. Et donc, moi, je crois que, comme il le dit, euh, les imams doivent renouveler dans leur message hebdomadaire de la pierre du vendredi, mais également tous les chefs religieux doivent renouveler cette condamnation, ce bannissement de l'homosexualité.